نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزير وجن ثم ذي حقد فم وعين وحين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجني من النصارى ومن قفوا طريقه يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا خوف وخذ بيدي يا جعل الحال بين الكاف والنون الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان سيد الشهور وأنزل فيه القرآن كما أنزله في التوراة والإنجيل والزبور فتح فيه الأبواب الجنان وهنيئا ما فيها من النعم والولدان والقصور وأغلق الأبواب النيران عن المؤمنين وعدها لكل المشرك والكفور وفرد صيامه وضعاف للصائم أجور وفضل قيامه ورتب عليهم الجزء المأجور والصلاة والسلام على صادق الأمين قبل أن يكون رسولا محمد رسول الله أنا نبيا وآدم بين الماء والتين ثم جاء أما بعض إخوة الإيمان في كل مكان assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dina ko ñu sante yàlla ci xéewalam yu bëri mat yi di dellu di julli ci sangu-sang yi mu seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi rawatina ci weer bi leen ci baalu xàq di leen ci baal xàq yàlla borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla boore baal bu loo xam ne jaamu nañ ko rek ci bis beeg weer bi yëpp ni ñu ko buur yàlla nangul ca nam toll ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jëlit yi ñu def ngir matta ci doomu aadama la moom xam na zaahir yeeg baatin yi ne yàlla boole ñu yëpp jéggal ñu ko waaye fulal li ñu ko yiw dugalal ñu ko suñu compte yëpp ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e naa ñu dégg ci kàddu layen ci biir di soññ suñu bopp te di leen ci soññ ndax yàlla bi yàlla wax subhanahu wa taala fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin sallallahu alayhi wa sallam ne ballighuni walaw bi ayatin yàlla ne dee leen fàttali ndax fàttali dina jur njariñ ci ki fàtt yeneen ci bi ne nañ koy jottali ginnaaw ndigalu boromam donte benn aaya la mel ne rek ca yooya la nekk lépp kuy wax rekk da ngay tënk sa bopp jaamoo ko yàlla def ko di rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mel gan biñ doon seetlu yegg si dafay gan dafay laaj teral terangam nag du daara lu dul siyam ba def ak xiyam ya koy def tasbihaat yaa ngi cay def sadaqaat yaa ngi cay def tahlilaat yaa ngi cay def mooy teraanga weeru koor dañu koor ñu ko sallallahu alayhi wa sallam jàngalee te lañu nekk wax na moom yonent bi nettali ibnu abdullah ibnu omar nettali ko mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ni ku yàlla yónni ki nee na ay wala bu ngeen séenee weeru koor dina borom bi subhanahu wa taala nee na arash dafa am doole wa ma duunaha nee na lu dul arash tamit dana yuuxu anam yeneen bi ndaafoon yi te arash nañu wax ne mooy ngàngu nayi borom bi subhanahu wa taala yeneen bu weeru koor feeñee dafa yuux abdullah ibn omar mooy nettali jële ci rasulillah ñu ne yàlla da koy law ba defee ñu ne laaj ko sa yuuxu boobu lu tax mu ne tuuba li saaimuna li ummati sayyidina muhammad ñi ñu laaj aras li tax nga yuuxu mu ne waaye daal maa ngi leen di yëgal weer yu ñu tuddee weeru koor ba mu terew ba léegi texe ñeel na xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa nañ la ca weer la boo xam ne dafa bàyyeekoo ci borom bu tedd wàcc ci guddi gu jaar ci yónnent bu tedd te mooy Seydina Jibril wàcc ci guddi gu tedd waaye ñëw ci loxo ku tedd muy Seydina Muhammad yooyu yëpp dajale ko benn nit bu woor ci xeetu yeneen ci bi am nga ngëneel yooyu yépp la dem ba ci biir ne la xayrun min alfi am na guddi gu ca nekk yoo ko wooree daa am junni guddi boo ko taxawalee kazalika noonu moo tax aras yuuxu yuuxam googu ba weeru koor teroo wax ne nag texe ñeel na xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax mu ne bi ma lahum inda allahi min alkarama ñu laaj ko aras boromam laaj ko li tax nga yuuxu mu ne texe ñeel na xeetu yonent bi ndax teraanga yi leen yàlla defal ci weer wi yan façon teraanga ne na yemu ca waaye wal istixfaaru lahum teraanga yi la leen yàlla defal ñoom xeetu sayyidina muhammad ci weeru koor muy ba ca njëkk mooy wa istixwaaru lahumu shams jant bi yàlla bii nga xam ne bis bu nekk mu ngi fenk ak a sox saa yu weeru koor teroo daf ñuy jéggalul suñu borom ñun xeetu yonent beneen xeet bu ko am nag ci daraja weeru koor waaye ci daraja kan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam weeru koor teroo aras dafa yuuxu wax ne teexe ñeel na xeetu yonent bi nee na yeneen bindaafoor yu bari yoo ñu ne leen teraanga ñeel ne leen teraanga yi ba ca njëkk mooy istixfaaru lahumu shams nee na jant bi daf leen di jéggalul ñoom xeetu yonent bi ci weeru koor nee wal xamaru weer wi daf leen di jéggalul te gis nga weer wi dafay fenk jant bi di fenk saa yu xëyee ba so nee yem ci wan nu juumu biddiw it dañ leen di jéggalul ñoom xeetu yonent bi ci weeru koor nee na wan nahaaru bëccëg ya dafay jéggalul xeetu yonent bi waaye layl ba guddee dañuy jéggalul xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci weeru koor moo tax ñu ne la weeru koor nag teraanga yi ca nekk kenn xamul nam toll boromam rek moo ko xam bële paase wax na la laa yaalamu wala tuxsaha illa allah kenn xamu teraanga yi ca nekk waaye kenn mënu koo takk kudul borom subhanahu wa taala ndax xee weer wi weer la boo xam ne yi ci mën a am ci ngëneel ak dabaatal sa diggante sa borom dafa bari lii rek doy na sa jant bi chaque jour bu génn te ba bu xëyee ba ba muy sox mi ngi lay jéggalul mboolem xeetu yonent bi sallallahu weer wi kazalik te bu jant bi suuxee ak biddiw yi ngi lay jéggalul sa borom ba bàyyi weeru koor bi di jeex ak guddi gi kon amul benn seconde boo xam ne yow bu bokk ci xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci aras bi mu ko dane wama dunaha amna yeneen mbindaafoon yoo yo xamne yàlla bind ne len te ñu ñey jéggalul yow xeetu yonent bi ci wéru koor ene yemu ci wa tay picc yi yàlla am dañ lay jéggalul ci wéru koor yow xeet mu bok ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yemu ci wal xiitaan ene na jën yi ci biir géej dañ lay jéggalul yow xeet bu yow mu bokk ci xeetu Seydina Muhammad ci ba ci weeru koor nee na wa kullu zi rawxin ak lépp loo xam ne dafay xëy di gont ak di fanaani rek su weeru koor teroo ku bokk ci xeetu Seydina Muhammad dañ lay jéggalul sa borom te yàlla nee na yooye amul benn bu ci esek ndax yàlla nee na amul benn lu ma bind te nekkul di sàbbal wa in min cheyin illa tasbihata amul loo xam ne man yàlla sàkk naa ko muy mbindaafoon te nekk du ma sàbbal sàbbal yooyu muy def nag ci bëccëg weeru koor ko bokkoo boo bokkee ci xeet Seydina Muhammad yëgal na njëggal lan lay sàkkul sa digganteeg sa boro te yàlla nee na laa radda fiihi du ma ko delloo abadan dama koy nangu sotti ko ci xeetu yonent bi sallallahu wa sallam kon nag yooyu yàlla wax te Abdullah ibn Omar nangoo ko ci yonent bi mu jottali ñu yàlla bu ñu ci dara ji yonent bi sallallahu wa sallam moo tax mu ne kenn rek bu weeru koor jotee lan dul nangu ak jéggoo mag waxam kudu seytaane waaye nee na leneen Abdullah ibn Abdullah ibn Omar nee na mboolem li yàlla bind bu weeru koor jotee dañuy jéggulu xeet Seydina Muhammad ba mu des seytaane seytaane kese ba tax dégg yonent bi ne saa yu ñëwee moom weeru koor duf dati shayatin dañuy jël seytaane jéng ko ba du mën a yëngutu yu si des yëpp di sabbal ak jéggalul xeetu yonent bi sallallahu alayhi nee na loolu bokk na ci karaama sëru ramadan mooy teraanga yàlla def ci sëru ramadan ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dena fa ida asbahu la yatrukuuna allah abdan min hadihi l ummat illa gafara lahum nee na buñ xëyee ñoom ñu ñu mën a tuddal nag mboolem mbindaa foon yëpp ak arach ñëpp a nekk du ñu bàyyi dara lépp luñ romb ci sàbbaal ak jéggalu daañu ko def ba yàlla jéggal ci bokk ci xeetu yonent yàlla muhammad moo tax nga dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaaj weer wi fukki fan fukki fan fukki fan nee na bu njëkk bi jéggal maxfira beneen bi yërmande la mujjanteel bi mooy itqun mina naar moo tax ñu ne la ku faatu ci bëccëg ci weeru koor kooku day dugal janna yee tax nga ne lii moo tax bu njëkk bi boo ci faatoo yaa ngi faatoo ci njëggalu borom te jaam bu ne ci diggante ma borom njëggal la bëgg ene boo faatoo ci fukki ñaareel ñaareel fukk bi yaa ngi faatu ci yërmande borom te yàlla jaam bu ne yërmande yàlla la bëgg nee na boo faatee ci fukki mujj yi nag yaa ngi faatu ci itqun mina naar bokk nga ci ñu yàllay goreel safara yow xaw ma kan waaye sa yaram du dugg safara te la ci yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam nee na bu weeru koor jotee mbooleem lu yàlla doon mbugal day teg di mbugal ma ngir xormaal di mu xormaal weeru koor bi jeex ba tax ñu lay wax ne saa yu weeru koor feeñee gis nga yow ñu ko njëkk seen waa jahannama dañ lay ñaanal ndax yëg na ne keroog la yàlla wàcc mbugal bi si ñoom ba bàyyi weer bi jeex kon yooyee yëpp yaa ngi ko am ci xeetu yonent bi moo tax sallallahu alayhi nee na ñooñ dum dañ mukk di la jéggalu yow jaam bi ba bàyyi yàlla di la jéggal dañuy ñëw sax teewal seen jëf yooyu ci kanam yàlla bu jant sowee yàlla na la yaa malaaykat yi yéen sama malaayka yi ijaalu sawmakum woor bi ngeen def yéen malaayka yi wa tasbihatukum ak sabbal yi ngeen doon def ci bëccëg bee guddi haja shawru ci weer wii ngeen doon nekkoon ci weeru koor kan ngeen ko doon defar malaayka yaag yeneen bindaafoon yi nga xamul yépp ne yàlla ñi ngay def sabbal yi ñu doon def koor yi ñu def yépp ñi ngi ko doon def li ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam defuñu dara lu كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون يو يوك كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يابال ني ام غي نيل بو خامني بنين خيت امو داغا ديغ الله وتعالى واخ ني كنت امه اخريت للناس ما لين جيني تي خيت بيم تي خيت وايي نك سانس بي نين ام موي تامرون بالمعروف تاغين نيك تي وتنهون عن المنكر تاغين بايكو نين لي يعني ديغلو با تا ديتا نيك ديكو ديك boo mënul def yépp nga def lan ca man nee na tey tere lu bon te bàyyi ko boo juumee ba dem ba suubu sa nee demal nga jégul sa borom te weer wi hada shahru shahru tawba weer la boo xam ne boo jéggaloo sa borom sa borom baal la ndax man saama shahru ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma taaxar sallallahu alayhi wa sallam nee na kii ko woor ànd ak ngëm yàlla ku mët sëkk ak rafetal ni ko sallallahu alayhi wa sallam digalee nee na sama borom nee na la jéggal bàkkaar yi nga def ak yi nga defagu kon yow xam nga ne kon sowe nga kon bu ko defee ñu xam ne weeru koor du weer woo xam ne weeru caaxaan la weer la boo xam ne ko def ngëneel ak kera teraanga ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na sallallahu alayhi wa sallam ne nañ bàyyi xel ñun ñëpp ne inna haza shahr شهركم هذا شهر البركة أنا نبي خلنا خمنا وير وين نكنك وير لبوا خمنا بركة كسر موجينك وحنا لنا كرامة جي ترى عن يشي ده كم كم لنتر أنا أنا نجبت جب خم ينب كن نكونك تنين تكيب ينتبه خمنا وير وين تبي شهر رمضان نن خمنا وير لبوا خمنا مو شهر البركة تموي شهر وير البركة لودة يلا بركة لنا lolo tax yonent bi ne la boo tëddee di nelaw ñu fay la tiyaaba bo tok di jàng alquran ñu fay la tiyaaba boy liggey ñu fay la tiyaaba boy sabbal ñu fay la tiyaaba bo taxawé di wax ñu fay la looy def ludul lu haram dañ lay def tiyaaba moo tax loola mun a sóoru barke la wer la bo xam lo ci def rek yàlla jël na loxoom tek sa kaw barke len la sallallahu alaihi wasallam neena nañ xam ne hada shahru shahru surur nee na weer la boo xam ne mbégte moo ci nekk war nga ko mën a gëm ndax lu toll ni malaayika illaahi ak aras nam toll ak malaaka yi ca nekk ak dina ko yàlla téye yooyu yëpp di sàbbaal ak woor ya fa nekk ak yeneen bindaafoon yoo xamul bu dul seytaane ñëpp di jaamu yàlla ngir yow mu bokk ci xeetu yeneen bi yàlla jéggal la say kon war ngaa xam ne weer la boo xam ne mbégte moo ci nekk wata yonent bi ne nan xam ne haja shahru shahru surur weer la boo xam ne mbégte la bu ci suñu borom subhanahu def et nañu xam ne tamit hada shahru shahru daafullah ajrahu weer la boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam nee na sama borom bépp jëf bu ci waay def nu mu tuuti tuuti nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na sama borom da koy fulandi cennam toll wax naa la dara gënul rëy yàlla ne lépp mën naa yónni malaayika mu fay ko julli bi ngay julli mën naa yónni malaayika mu fay ko yooyu yëpp yàlla dafa yónni ndaw ci yow mu lay fayal wa li ne wooru koor mooy teru man borom bi subhanahu wa taala sama teddanga ak na ma doy may ñëw jël karne sama jaam bu dog jotee ba mu wax allahuma allahuma li ma qaddamtu wa ma aqartu allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala risqika aftartu faghfir wa tax mbokk yi bu ñu bu ñu dog jot bu doon cinq minutes sax toogal jàkkaaroog sa penku bi jullu sa borom teg ko laaj ndax yonent bi nee farxataan mbégte la boo xam ne jaam bi bu wooree ba ngoon heure bu nga xam ne dog tuutee ci des mu toog jéem a def connexion diggante ma boromam jéem ci jéggalu loo fa ñaan yonent bi nee na foofa loo fa ñaan yàlla defal na mu tax foofa teewlu bul nangu mukk affaire caaxaanu adduna yi ngay basé su ñoom fexel booba heure boobu mu fekk la nga teewlu sa diggante ak sa borom moo xam da ngay sàbbat moo xam da nga na teg nga xalaat sa mbindaa borom yi ba dog jot nga laaj ko na ko nag allahuma laka sumtu wa bi kaaw man yow rek yaa taxoon ma doon woor tey gëm laa tax ma woor wa bi kaaw man wa ala risqika aftartu li may joge nii kenn wërsëlee guma ko kudul yow faxfir lii nag leen na tax ma lay ñaan jéggal ma samay bàkkaar maa qaddamtu wa maa axartu li ma jiital ak lu ma defagul yépp maa la koy ñaan yàlla ci sa mbaax nga baal ma ko yàlla nee na bu woor koor booba man yàlla sama jëmm may bindal sama jaam boobu ci weeru koor tiyaaba booba mané ne mbokk yi ku xam loxo yalla nam toll benn fan rek bu loxo yalla bindi leen doyna sa ndax yadullahi fawqa aydihi koko nak jam ne yalla ne jam bi bu woré wéru koor ma koy fayal sama bokk wa ana ajzi bi man yalla, may fayal sama jam bi wor wéru koor sama loxoy bop bu ko loxoy malaak kon bu na la wéru mbékté la wéru barké la wéru karama la war nga ko mëna gëm waye wér la bo xamné bu na la wér la bo xamné yu daaw ajarawu damay fulande jëf yi ngeen ciy def moo tax loo mën a def ci jëf ju baax def ko loo mën a def ci xettali sa mbokku jullit loo xam ne yaa ko ëpp doole ci ndimbal ci li mu dogee wala ci li mu dundee dimbale ko ak lu mën a def bu dee wax bu baax la def ko ndax sa eh, borom bi subhanahu wa taala nee na qawlul maaruf xayrun min ya yatbahu ada nee na wax bu teey te jekki te sell te leer na boo ko waxee jàmm bi dana ci orienté diggante na boromam defaru ci nee na moo gën fuuf wax boo xam ne da nga koy wax ba pare toppaat ci ay nee na musiba la kon loo ci mën ci weeru koor sallallahu alayhi wa sallam nee na de ko def ndax weer wi nee na weer la boo xam ne huwa bil xayraat mamuum nee na yiw la yoo xam ne da nga ko ciy te doo xam yiw yi nam toll te dafay nekk benn yiw bu ndaw nga def ko di ko xeet sallallahu alayhi wa sallam nee na ëllëg boo demee ba dajeeg sa borom mu ubbil la ko ne la ni benn tàndarama boo xam ne dañ ko joxoon sa ku jaam mu woor ba ngoon mu dogee ko moom la la yàlla ubbil appartement yi yëpp ci benn tàndarma bi nga joxe woon moo tax yonent bi sa alayhi ne na xayraatul mahmum yiw yoo xam ne dañ la koy ëmbal te doo xam nam toll moo gis nga loo am bu ko xeeb bu doon ñaari tàndar ba ko yor dendee sa mbokku julli sax bu dog jotee jëlal benn bi seex jox ko benn bi mu set yëgal ne am nga tiyaabu boo xam ne danga nga xeeb jëf ji nga def waaye rëy na sa kanam borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne chahru nañ xam ne haada chahru chahru du'a weer la boo xam ne weeru ñaan la lépp loo ci ñaan yàlla subhanahu wa taala dina la ko defal sallallahu alayhi wa nee na weer la boo xam ne mustajabaatu li du'a yow mi teel a woon nga xam ne da daan ñaan sa borom ba sonn te ko gis te wax naa la jaam du ñaan boromam mukk te yàlla nangu imma nga gis ko wala nga ñàkk koo gis waaye ala kulli xaalin yàlla ne ruus naa sama jaam tallal ma samay loxo ma di ko rése benn kay ma xam ne kii li muy ñaan baaxul ci moom nee na ma téyel ko ko ba ëllëg bam ñëw ko wala ma xam ne dina baax ci moom ma jox ko ci lenn la des ma téyel ko mais yàlla boo ko ñaanee sax du la joxandoo lépp xamul dafay xaaj lenn li mu delloo ko lenn li mu jox la ko nga jëriñoo ci waaye yàlla jaamam du ko càllal mukk mu koy rése kon nee na weer la boo xam ne musu jaabaat li duwaa waaye weer la boo xam ne wal jannatu fiihi l mufattahaatu l abwaab sallallahu alayhi wa sallam nee na weer boo xam ne yàlla dafay ubbi bunti aljanna yëpp ngir jaamam bi bu faatu woon ci koor yàlla da koy teew yeewali ci biir aljanna maanaam aljanna lay xippee ji moo tax weer la boo xam ne tamit wa tawbatul maqbul ki ci defoon bakkaar ba ci ca diggante sa borom yeesalal sa ngëm te duggaate lu ko mën a kam waxaat baatu seede yi seede waat ci diggante sa wax naa ne jamono bii ñu toll nit dina def lu koy génn ci lislaam te du ko yëg moo tax foo toll rek saa yoo yeewoo del bee salaat sa ngëm yàlla te jiitu tihaadaatu lillah waajibun ala kulli xaalin wa lamxa dafay war ci jaam bi fu toll di bee salaat ngëm yàlla ndax xamoo nan la ak naka la mën ngaa wax lu ndaw fekk génne la la si lislaam moo tax di bee salaat sa ngëm yàlla تموي واحد بعد شهري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بور بيسالة تنم يلا دفتبا كون بوتو بو تفون بكر كيوير وي غاوان دو ديلو تي نخ يلا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا توبة ومقبولة لمن تاب نينا كتوب يلو تي تي بورو مم نك كيوير دان كوكو جيجل اي بكر يلا نينا تي مباخم la taxnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian bu leen naagu mukk ci sama yërmaane sama diggante ak sama jaam yéen sama jaam sallallahu alayhi wa sallam nee na sama borom nee na bu ci kon sar la boo weer la boo xam ne dañ kon ñun ñëpp tuubu ila allahi tawbatan nasuhan alquran la ñu yàlla wax taala nañ tuub dellu suñu borom waaye nekk tuub gu wér te bir te ànd ak jëfe ndigalu borom bi subhanahu wa taala wax na ba léegi moom sallallahu alayhi wa sallam ne weer bi ñu nekk di koor nee na weer la boo xam ne wa tijaaratu fiihi lan tabu nee na doo ci def doo ci defal benn commerce sa borom te yàlla du la jëlal commerce boobu barkeleel la ko fulal la ko nangul la ko tijaaratan lan tabu nee na loo ci def rek man za allazi yuqridu llaha qardan xasana fa yudaa'ifu lahum yàlla nee na kan ci yéen moo may lebal loolu mooy commerce bi kii def lu baax koy fekk sa mbokk jullit man ci ordonnance nga dimbale kuy fekk sa mbokk jullit nekk ci ay xat-xat nga dimbale kuy fekk sa mbokk jullit taalul cëram nga dimbale kuy fekk sa mbokk jullit amul lu mu sol nga dimbale yàlla nee na boo ma ko lebelee ci biiru weeru koor xamal nag ci yaara gang ma lebal mooy commerce googu nga ma lebal sama diggante ak yow du du du nekk loo xam day lamb dafay barkeel ila yow yi baasul kon nañ xam ne weer wi liñ koy waxee weeru promotion la lu ci waayu def rek du ko rëcc koo mën a dimbalee na nga ko dimbale te jëmbi yàlla tax nga jël sa bopp def ko la yonent yi waxoon in ajriya ila la jàmm bi fekk doxee woo ca diggante sa borom noonu rek sa jëm yàlla day des jàppal ne bu la bu xool bu nit ñi la lay nit ñi jox bu ko xool na nga dee sa bopp des yàlla xam ne keneen ku yàlla nekk jël nag sa payoor gi leen nit ñu war a fay la bàyyi ko sa borom sa borom fay la ndax yàlla bu la fayee moo gën a mag bu ko defee nag loola la jaam war a dox diggante ma boromam waaye salaay salaam nee na tuuba li man saama xaqa siyaam beneen bi nee na texe ñeel nag jaam bi nga xam ne dafa woor weeru koor na ko subhanahu wa taala santaane ci yonent bi salaay salaam jot bi jottali ko ñëpp dégg ko moo waree ko noonu te ba ñu def boppam kiif ak mar wax naa la du kiif ak mar ci la waaye du moom kese mooy da ngay war a waral cër yi la yàlla dénk yëpp loxo yi kazalika fexeel bu ci jël lu xaram bët yi fexeel bu ci xool lu xaram nopp yi bu ci dégg lu xaram bopp bi fexeel bu ci yenu lu xaram biir bi fexeel bu ci lekk lu xaram tànk yi fexeel bu ci dox lu xaram ndigg li fexeel bu ci tëdd lu xaram te ndesukaay yi mooy sat ginnaaw fexeel bu ci toog ci lu xaram fexeel sa awra bu ci mooy yàlla sa làmmiñit bu ci wax lu xaram yooyu yëpp na nga koy wooral comme ni ko subhanahu wa taala santaane ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wooree ko ko ñëpp gisu moo tax yonent bi neen texe ñeel na képp koo xam ne woor ne comme ni ko subhanahu wa taala santaane ci man ma defee ko noonu ëllëg dina dajeeg borom ci teraanga ju rëy moo tax xaqa siyaam la wax nee na woor la boo xam ne koor la weer la boo xam ne waa nii an li man qaama xaqa qiyaam nee na texe ñeel na koo xam ne wala texe ñeel na koo xam ne dafa taxawee julli guddi ya moo xam ci naafila wala ci ay askar wala lu mën a doon la taxawee guddi ya di ko màggal boromam ak di ci fàttali boromam nee na kooku dana texe dana ko ñeel waaye wa saadun liman axlasa fihi almalikul muluk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na texe la neen na tamit ki nga xam ne dafa sellal diggante ba boromam ci lan xam ne nag lii du santane kenn borom bi subhanahu wa taala moko santane ci ab yonenteem bu tedd moy sallallahu alayhi wasallam ñu war koo def nga fexe lañ ca wara def ci lu sel nga def ko ci ne ko subhanahu wa taala santane nga def ko mu ne kooku bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam dina am innahu la gafurun shakur dina xam ne buur nga xam ne malikul alam te mooy buuru ñëpp kuy buur mooy sa buur dina la jël la ñu tuddee alxafar sotti ko sa kaw te ñëpp a xam ne turam bu ñuy wax Gafaar bu la ko muuree bu la ko jéggale xas daa bind sa kaye carnet yëpp mënatoo def li yàlla bind bakka algafaar law kaana baabuka laa yati zawil usm fa ma duayta algafaar moo tax nga dégg nit yàlla yi dina ca jox ca dog ba wax la ca lan la cay wax ne la tàngam rek boo ko joxee yàlla farsa bakkaar bind la nag ci min at-tawaabiin loolu la shakka ba ca des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nañ bàyyi xel ñun ñëpp xam ne ay jaam yàlla uusikum bi iksaari min kulli amalin makruh nañ bëril ci weer wi nag ci jëf yu baax nañ bëril ci weer wi jëf yoo xam ne lépp luñ ci def yàlla subhanahu wa taala daf koy nangu barkeeloo ñu ko wa anhaakum an tuhbitu asiyaamakum siyaamakum yonent bi nee na mu ngi ñuy tere ci weeru ñu bañ a mabbu koor gi ñu def koor gi ñuy def sallallahu alayhi wa sallam ne nañ ko bañ a mabbu niñ koy mabbee mooy bëccëg yëpp nga woor guddi gi yëpp nga dem defi lu bon wala nga wóor bëccëg gi yëpp nekk ci deru gor yi wóor bëccëg gi yëpp lekk lu xaraam yooyu baaxul yonent bi ne nañ koy moytu bala ñoo màbbu suñu koor yi ci mu ne bil xëy moytul di jëw wa na mima wala ngay rambaaje di jaxase ay nit wa xawlu zur wala waxu caaxaan yooyu sallallahu alayhi wa sallam dañu ko tere kon lépp lu jub ñu xamne ci maahu subhanahu wa taala di dëng ñu xamne ku doon jottali moo matut in uridu ila islahan mastata'tu wa ma tawfiqi ila billahi alayhi tawakkal wa ilay unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh